ñoo ngi lay fay di nuyu ñëpp di ziar ñëpp à travers seen euh, YouTube bi di Mik TV euh, di nuyu sama mbokk taalibe yi sama daayira yi nga xam ne ci laa bokk du njëkkee si ñoom daayira Miftaahul Muna Touba Cité Fadia ak daayira Daaru Minam Touba Cité Fadia di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di mbégte lool ci dalal bi ñu dalal ci chaîne waaw Babacar Gakou nag benn ndaw la rek boo xam ne dafa juddoo ci yoon wi nekk ci tout tànk amaana ne buñ ciy doog a dugg ay ndaw la ñu woon xamuñu woon lu bari mais nag à travers ñu bu ñu ñëwee si dafa jaar grave lañ dëkkoon bi ñu ñëwee si dafa jaar daanaka en si la ñuy commencé jokk ci mbiru daayra yi. nekk ay tout tànk nag du ci doon doon ci dugg nag di ci góor góorgóorlu du ci góor góorlu wax dëgg yàlla daal eh, ab taalibe lañ daal waaw ab taalibe bu xeebu lañ daal moom la ñu mën a présenté ko suñu bopp waaw. waaw sëñ Daouda eh, laaj nga laaj bu am solo laaj boo xam ne dinañ am sawar tontu si ndax daanaka fi ñu toll tey ci àdduna fu ñu romb nit ñu naw ñu. nekk ñu nekk ay ndaw fu ñu waxee nit ñu déglu ñu daanaka mun nañ ne à travers daayira la à travers daayira la ndax it am na ci luñ newoon balaa ñu see dugg waaye tey wax ma dara mais tey daayira moo tax ñu nekk dëgg-dëgg ay nit dëgg dëgg dëgg dëgg moo tax ñu xam àdduna daara moo moo tax ñu xam lu bari bari bari bari bari waaw sëñ Daouda laajte bi laajte question bi am na solo waaw daara li ma njëkk a seetlu ne moom la def su ñun mooy li nga xam ni moo gën a am solo ci doomu aadama bi mooy yar ak teggin amaana ne suñu waajur def nañ ko su ñun mooy daayira gën nañu tàggat bu baax a baax ci luy yar ak déggin ak bàyyi ak caaxaan ak fo ndax daanaka ay ndaw la ñu nekkoon ci ay caaxaan di foo di jël suñu temps di ko def ci loo xam ne daanaka duñ ci am sax ngërëmal borom bi mais daara moo tax tey loolu loolu ñu teg loolu yëpp jël daayara def ko suñu dund tax na ñu xam cër bàyyi ay foo lépp li nga xam ne du lu baax daayara moo tax ñu xam ko waaw kon daal daara daal li mu def ñun bëri na lool lool lool seen daaw da waaw ah, seen daaw da waaye laaj bi it amaan na solo lool lool lool ndax dañoo nekk ci jamono joo xam ne léegi maanaam réew gi ñu nekk mun nañ ne fookat yi ak caaxaankat yi maanaam ñoom la seen mbir di gën a dox moo waral jeune léegi yi dañoo ñëw ba réer waaw mais nag maanaam foog lu mu lu lu muy maye maye maye maye maye mooy lépp ndax daara ci ngay amee. yalla sunu borom ci ngay amé sa liggéey fi ak ëllëg waaw ndaw yi nak li leen di conseiller mo ñu delluwaat ci daara yi ci ko défé daara di leen mën di yar def ñoom diiné xam-xam ndax ndax dañoo topp dañoo day nekk réew moom dañoo topp ñoo bu top alal bi bu baaxa baaxa ba top dërëm bi té seetlu nañ ne Sénégal fu ñu toll ni manana walum fo bi fa la affaire bi fa la utum xaalis bi fa la gën a yombee moo waral jeunes yëpp dem fa amaa na ne daara doo fa nekk ñu lay fay xaalis mais dañu war a xam ne àdduna maanaam du kër dañ fay ñëw pour liggéeyal suñu borom te daara yi man de man moom laa bis comme voie boo xam ne fa la ñu mën a jaar guddi yi ba mën a rëcc ndax it mbir moo xam ne soo si nekkee lu dul yàlla suñu borom ak yonent bi du la ko fa wax kon loolu jar naa jàpp daal bu baax a baax waaw sëñ Daara laajte bi am na solo lool lool maanaam balaa ñoo dem ci liggéey bi sax dañ naan jàng bi ñu newoon ndax yaakaar naa bi ñu nekk ay tout tànk di dem ci école yi ñu ñuy gis ak suñuy bàyyi laat daanaka des fois da doon gis ay mbokk ay nit ñoo xam ne ñi nga xam ne xamuñu sax dañ naan ah saa waaye école bi ngeen bëgg bu école ak lii àndul te yaakaar naa ne bu ñu doon xool ci classe yi mën nañ dem demkatu daara yi ñoo doon jiitu ci classe yi avant liggéey ñi kon nag loolu day wane firnde ne maanaam lu baax boo ci nekkee rek rek sunu borom da dimbale mu ñëw ci liggéey bi te liggéey bi yaakaar naa gàllankooruñ dara loolu daf ñoo yokk daf ñoo yokk ndax it amaana ne daara ji tey moo tax yenn yu bëri ñu ñu ñu ñu ñu ñu xam ko te daara dafa nekk mbir boo xam ne seen daaw da Aram manam ci même wutum àdduna sax da lay dimbale ndax des fois ci ngay nekk ba suñu borom mën na dimbale ay connaissance yoo xam ne dañoo ci yoon bi mën na lay jàppale ci lu bari kon mom daara moom man gisuma si benn gàllankoor muy di ñaaxaat ñi nga xam ne ñooy élèves yi ñu jàppaat daayira yi même lu ñuy jàng jàng jàng nañu jàpp daayira yi bu baax a baax ñi nga xam ne dañoo ñëw ba ba commencé liggéey seen liggéey lu mu leen tënk tënk tënk dañuy jàppaat daayira yi te nag te nga xam ne loolu ah mooy këru mucc gi ci lañ mën a jaar pour mucc ñun ñëpp waaw sëñ Daouda seen euh, bii di Mik TV nga xam ne ñoom ñoo ñu dalal tey ci émission bi njëkk maanaam ci ëttu sëñ Saliou Mbacké waaw concept bi nag ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax ndax ndax maanaam jël émission tuddee ko ëttu sëñ Saliou rek loolu rek dafa rëy xam ne ñun ndaw ñi suñ saaliw lañu am lu ñu xam suñ saaliw la lu ñu mënti am suñ saaliw la concept bi rafet na te te te te te gis nañ ne wax dëgg yàlla seen seen seen bu taw féexe la ñoo ngi ñaan nag mbokk taalibe yi nag ñëpp abuna chaîne bi maanaam ñu xam ne chaîne bu am solo la te seenu muridi la na si ñëpp jàpp bu ko defee rek yaakaar naa liggéey bi jëm ci kanam